na koy xelal. mais justement sama yoon nekku ci nag de. fekkee rek ma ci boole fekkee ma ci boole. temps yi parti Youssou Ndour laa bokk. di kenn duula Naby Vi magu Marème Faye. def interview ak sunu mbokk yi l'observateur yi. ŋaññi li nga dem ci TFM toog fa ne génn nga APR. nee na waru la te waroo woon def foofu sax faf waroo woon waxee foofu. di nga doxalee waroon ko woon doxalee moom Mansour Faye ancien ministre itam. waaw moom sax xam nga wolof moom dafa bëri diplomatie. moom li mu wax mooy daanaka man traître la dama trahir suma grand frère eh, normalement waxu Mansour Faye moom waruma ci sax tontu ndax eh, dafay mel ni mbaam buy ŋaax rek nga xam ne eh, yàgg na ko def saa yu génnee làmmiñam saa yu waxee rek nit ñi ne daal di tëj seen nopp yi su waxee wax musiba su waxee wax lu ànd ak reewaange su waxee wax loo xam amul richesse maanaam médiocrité

fukki at ak ñaar teraanga bu nekk mu am ko ci nguuru Macky te dara waralu ko lu dul nekk gorom Macky du njàngam du jomam du mun politikam am du kàddoom gu jag du kàddoom gu rafet du mën liggéeyam kon nag situation bu mel noonu bu amoon waroon na am retenu bañ a dugg suma diggante ak Macky Sall ma fàttali ne man dama ko bëgg ngir yàlla jaral na ma ma def sacrifice yu bëri ku dem ba ne da ngay génn APR waaye tey jii Macky bu taxawoon nga woteelaat ko. Ah. kooku war nga xam ne trahirul Macky waaye nag. Hmm. dama jàpp ne hmm. xëy na moom daf koo yomb muy ut beneen sant xam naa bëgg a tudd Mansour Faye Sall man nag yomb moom may changé sant ki ci changé bàyyi waaye moom xëy na yomb na ko bu ko neexee mu def ko ba pare tamit euh, ma koy yëgal ne wàllu traître bi ma ko waxee daf ma métti lool ndax euh, traitre lu ñaaw la. dama dem sax ba tijji livre état civil su may waajur ak su may maam. Naby Vision xool lu tax lan moo war a mën a tax rek Mansour fay mën a am sañ-sañ man Aliou Sall mu may tuddee traite xëy na da ko gis ci man wala su may waajur wala su may su may su may maam waaye bi ma tiddee libre état civil yooyu gisuma ci benn yoon trahison maanaam lu ñuy wax traison wala traîtrise parce que ñaari moo la yu jege waaye yu wutee waaye ñaar yooyu gisuma ko ci sumay waajur gisuma ko sumay maam.

bu ma paree ci diggante damay continuer sama liggéey nag waaw kay bu ma kenn sosol bu ma kenn waxul lu ma waxut ba tey waxuma ñoom ñoo wax man damaa gis doon romb rek far gis ko rek après nag ma bëgg leen koo jottali xam nga jottalikat la waaw ñu delluwaat ci liggéey ba ministre yi la ñuy def am na solo lool nañ delluwaat ci liggéey ba rek daa jëf leen fàtte ne le 14 nag gannaaw suba sargal Seydina Ousmane Sonko DJ au martyr fële nga xam ne mooy grand théâtre incha allah rabi à partir de 16h kon boo kenn wuute waaye mbaa yëg ngeen ne man Mansour fay ak euh, Alioune bi ñu ngi tëkkuwante tëkkuwante yu metti waaw Fami fay Sall bi yëngu na de mais man nag dama cee bëgg a lekk xaalis seen tëkkuwante bii parce que CNG laa jóge léegi léegi dama leen bëgg a tëggal làmb làmb ju rëy dama bëgg a wut licence leen làmb ju rëy rëy waaw lekk ci xaalis parce que combat la de combat bu rëy mais imagine leen ngembu Aline Sall nu mu war a mel ngembu Aline Sall Aline Sall mu ngemb ba taxaw taxaw ak biir bi biiru riba bi bi nga nga nga nga seen Mansour Mansour Faye fël nag ak ay yeelam yu sew ba taxaw nag ñu war a jàkkaarloo. Naby Vision. waaw dem naa CNG ba pare de maa ngi dox combat bi de neen ko waajal bu baax def ko drapeau yàgg baax Pape Djibril Fall laay tuddee drapeau bi waaw télé dof yaa teg nag en direct dof yi waaw entrée gratuit Mansour Faye ak Aliou Sall en direct incha allah na ngeen ko xaar bu rëy. salaamaaleykum seen mbokk la seen xarit Cheikh Kébé laa bari ko dama seeraan émission bi Babacar Fall doon def ak Aliou Sall le frère de Macky Sall mais la manque de professionnalisme de Babacar Fall ak a feeñ ci émission par exemple comme Aliou Sall dafa wax ne maanaam Mansour Faye maanaam li ne li mu nekk borom Macky Sall moo tax ñu ko ay ndombay tànk lu ne ci réew mais du xam-xamam mais loolu c'est scandale la loolu erreur gënu koo gënu koo rëy mais Babacar Fall dafa bàyyi ko jàpp nga xam ne Babacar euh, bu fekkoon ku bokk membre Pastef moo ko wax tey jii maanaam émission bi foofu la koy yemal maanaam ci loolu lay ñëw di ci ñëwaat di ci ñëwaat di ci ñëwaat. Naby Vision. mais le moo ko wax te Aliou Sall lañ daan liggéeyal moo ko bàyyi émission bi comme. muy soog dala yaabe daal amul ay question réponse ba doyal mais loolu kenn du ko bàyyi mu jàll Mansour Faye li mu nekk war a Macky Sall moo tax ñu jox ko ay poste responsabilité ci réew mais du compétence am mais loolu loolu ko gën a rëy te loolu Babacar Fall da koo bàyyi mu jàll nga xam ne kon Mansour Faye manque de compétence moo tax ñu jël ministère maanaam bu mag jox ko moom xaalisu Covid bi plus de mille milliards xaal bi ci maasu fay la la des xaal bi laa wax xaaju xaalisu Covid bi ci Mansour Faye la des kon soo manque de de de de de manque de par exemple ñàkk a mën liggéeyam manque de compétence am kon moo war a loolu tey. nabi Vision kon réew mi Macky Sall kon affaire goro affaire yaa ma neex. sama mbokk koo mën a doon ma ànd ak man ma jox la loolu moo fi nekkoon loolu feeñ na kon ñoom seen biir ñu ngi commencé tamante ay dëmm mais loolu ñun suñu nga ñu nekk ci l'essentiel daal muy Mansour Faye muy Aliou Sall képp koo xam ne ci régime Macky Sall jël nga alalu Sénégal bi caxat-caxatee ko def ci lu la neex na yoon def liggéeyam liñ ci war a fay nga fay ko liñ ci war a remboursé nga remboursé ko boo boo ci waree tëdd kaso tëdd ci kaso lii mooy li nga xam ne moom la ñuy xaar ci état actuel bu senegaal ne justice nag dem liggéeyam ndax alal ji alalu réew mi la Mansour Faye moomu ko Macky Sall moomu ko Aliou Sall moomu ko ndax yoon def liggéeyam du luwal alalu réew mi teg ko ci wuti beneen métier mu journaliste. Naby vraiment li ngay def moom du journalisme mu daal waaw dëgg yàlla mën nga koo bàyyi dem jaayi leneen daal.